di xul huwallahu ñaari yoon ñu dikkal leen ci waxtu yi nga xam ne ci la jàpp koor gi di 5 heures 19 maanaam juróomi waxtu ci fajar bu taftalee fukki simili ak juróom-ñeent bu dee waxtu dog yi di 19 heures 26 maanaam juróom-ñaari waxtu si ngoon bu taftalee ñaar fukki simili ak juróom-benn ñu ngi leen di jox dig daje ba suba incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala. wal madadi